asalaamaaleykum euh, mbokki internet yi ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax di leen ziar di rafetlu ànd bi ngeen di ànd ak euh, Sunugal 24 seen site bi nga xamante ni macha allah fa tabarakallah ni ma leen ko waxee njëriñ kese ci lay doxee parce que informer juste et la wax waaye lépp loo xamante ni xeetu baax baax la mu nekk euh, ci dëkk bi ci Sénégal ak li ko wër da koy daal di jëli indi ko teg. su ko defee rek eh, yéen mbokk yi nga xamante ni yéen a ci mënul a jotali ji ngeen eh, mën cee jot ci anam ba ngeen ko bëggee loolu moo tax rek eh, tey seen émission Kër Mbaye ni ma leen ko waxee rek kër gi dafa bari ruq yoo xamante ni dama ciy dugg tey it nag su ma sañoon sedd bi ci boppam damay daal di nekk looloo tax rek ma defee ko nii rek ñu bayar sunu ànd cuuraay rek fas yéene ràcc mu dellu ñu dalal sunu gan gi nga xamante ni moom la ñuy am ci biir ñaw xalima Euh, gan gan lay doon joo xamante ne nag gàng la ndax ruq yi ci kër gi xam na ko macha allah te it euh, gars yi dañuy bëgg saa su ne ñuy àndandoo ak moom ndax li ko sabab du dara lu dul benn la ci jiitu li ma neex ci moom mooy yar gi teggin gi la ca toppitam itam maandu teg yi ak dunde lu lew ba tax na rek euh, du gaañ kenn te njariñ kese la làmboo lu mu laal a gën lu mu laalul sëriñ maam Cheikh sama xarit sama rakk sama lépp maa ngi lay nuyu Kor Khady <laughs> ak am ya sonu <laughs> mbay eh, boo ne kor xat ci tegaale kor joor mbay <laughs> ñaari jabar laa yor ah yii wax na dëgg kon kon eh. yéen a ko gisee noonu kon eh, kon kor xadeeg joor damay bañ ñu mere ma de <laughs> kor xadeeg joor càmmeñal lingeer yi waaw doomi mbayeng ci am di rakam ay ca bismillah asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mm-hmm. mbokki jullit mbokki taalibe yi ñoo ngi nuyu ñëpp di siyaar ñëpp fu ñu mën a ne Euh, nuyoo bi ak siyaar bi ñu ci jiital xalifa général des mourides miñ yaakaar di ñaanal yàlla gudd fan ak wér mm-hmm. di ci teg xalifa général de Tidiane mu yóbbaale ñëpp rek mm-hmm. ñoo ngi siyaar yi ñëpp mm-hmm. mbooleem ab julli daal fa ne ñoo ngi lay fekk di la jox suñ loxo di la ci nuyu gu gën a tedd di la wax salaamaaleykum wa ñu lay wax euh, waaleykum asalaam wa wa barakatuhu di kontaan bu baax a baax a baax Euh, ci ànd bi nga xamante ni moom la ñu nar a ànd ak yow gars yi nee nañ sëriñ maam Cheikh boo ko jotee ci téléphone yar beeg teggin bi daf la koy wan sëriñ maam Cheikh boo koy seetaan via Sunugal vingt da ngay gis ne du xippi bëtam sax xool caméra yi lu waral loolu yar bi la lan moo waral loolu. Euh, waaw bëgg na bëgg na ñoo yaru de. Mhm. ndax àddina moom. Mhm. boo fi nekkee lépp lu la ak yar mayut ak yaradiku mën la koo may. Mhm. waaw. bu fekkee da bëgg di jëflanteeg ñëpp. Mm. dangay ngay fas yéene ba mu yar rek ndax ñi ñëw ci yow ñëpp tamit. Mm-hmm. Euh, xëy na bokkuñu bokkuñu jukko. dëgg la mm, bokkuñu jukko te ci ëttub Sëñ Abdou ci kër gu mag gi lañ yaroo. Mm-hmm. kon nag defe naa ne war nañoo mën a composé ak lu ne. Mm-hmm. te lu la mën a nit mën a jaay lu lu taalibe rek. Mm, euh, amul solo. waaw boo xoolee ci Seydina Ousmane amoon na lépp. te lu Moustapha sallallahu alayhi wa sallam soxla woon. day indi joxe. dëgg la kon ak yar la woon ak tërbiye gi ñu ko tërbiyee. Mm-hmm. Euh, boo ñëwaatee ci ëttub Sëñ Tuubaa boo xoolee Seera Faal. Mm-hmm. tey jii fu aw turam yegg. Mm-hmm. ab yar ak taalibe rek moo ko may. dëgg la kon nag yàlla nañ sax ci sa bañ a gis suñ bopp rek. ci lépp waaw am na solo. am na solo bu baax a baax sëriñ maam Cheikh ñu ngi bëgg a yàgg man ak moom liggéey bi mu yàgg ci lool waaye taxu ko soppi jamono taxu ko soppi soppi doxalin tax taxu ko euh, def sax yu grandiose yooyu ñuy def rango kurus yi sol palmaan yi takk ak ñoom seen euh, loolu sax dañ ñi gars yi dañ ko seetlu parce que nag ay question la yu ñu may yónnee lu waral loolu. <laughs> Euh, soxna Baye. ñaan kat dama gis ñaan da nga war a dara jaw mais yow da nga ko simplifier nekk nit ku simple. yàlla yàlla xam na ne. Mm. lépp lu ci nit war am am nañ ko ci. Mm-hmm. waaw. Mm-hmm. man boo may gis nii ñi ma xam dëgg-dëgg di ma fekk sama kër. Mm-hmm. li ci ëpp perkaal laay sol. bu may bu may dem wala bu dara xewee sax. Mm-hmm. sama rakk bi ñu naan si ñëpp du xaab. moo naa ma xootil xootil nangam solu nangam. ba ci ay weer sax moo may wax jënd ko. waaye nekkul ma lu lu lu ma lu ma lu ma lu ma bàyyi xel. nekkul nekkul loo xam si dama dama koo dama koo bàyyi xel trop trop. d'accord waaw yëf yi daal moom nekkul ci mbubb. nekkul ci ay mbubb yu ñuy sol. nekkul ci dara. waaw te suñ borom nag loo gën a toroxlu jëm ci moom mu gën laa xëcc ci boppam. Mhm. waaw am na solo sëñ maam ba tey euh, dafay jaadu nit ñi xam ndax émission Kër Mbayang la ñu wax euh, danañ dalal ku ñëw xalima waaye itam danañ taataan xalaatam euh, ci wàllu ñaan ñaan léegi doon loo xamante ni wax nañ ne dafa yàqu ngay xale gis say moroom yi gone yoo xamante ni dañuy ñaan mais ni ma la ko waxee ni ñuy réyalee affaire bi ak ni ko maam Cheikh dunde du benn tolluwaayu ñaan fi mu nekk nii ci réew mi. Euh, ba nit ñi ñemeetuñu ko kenn wóolootul kenn noo ko gisee. waaw soxna Mbaye gis nga nit ñi. Mm-hmm. te jii lañ dàq ñaanlu ci démb. tey mm-hmm. lañ dàq ñaanlu. Mm-hmm. waaye leen laa wax loo xam ne si nit mënu koo dindi. te yaakaar naa lii ku nekk ko seetaan. Seexul euh, Xadim mas naa dénkaane. ne yow mi tàllal sa loxo di ñaan suñ borom. bul sikk sàkk ci lii nga ko ñaan dan la ko may. Euh, kii ñaanlu na la doyloo. bu la doyloowul mënoo faj aajoom. ñu bëree bëri mm. dañuy gis maanaam nit ki wax nii rek mm. ñi dawandoo jëm si nit ki mm. du ñu am confiance bi dëgg dëgg dëgg mm-hmm. te émission bi waxoon naa la ko gis nga ay ñiy wax ay junneeg yooyu nii gaa xëy na jaamu yàlla bu topp jaamu yàlla képp mm-hmm. moo ngi mel ne tey ji ab sëriñ akub taalibeem waaye junne amul solo ndax amul junne xamul dëgg-dëgg ilmul xaybu ci yonent yàlla Souleymane rek la ci ñi war a bàyyi xel mm. yonent yàlla Souleymane dafa ñaanoon suñu borom ne buy génn àddina na doon kumpa ci junne yi ba doomu aadama yi xam ne junne yi xamuñu xaybu mm-hmm. waaw kon loo wéer say mbir di ko wéer ci ay junne ay gelang gaa contrôle ñu koy def mm. waaye nit ñi laa bëgg ñu xam ne yàlla fa mu nekkoon du fa ma sa jóg dafa am benn bis may waxtaan ak euh, benn nasaraan mm-hmm. ma ne ko kulu nasin saaxitin mawti mm. bakkan bu ñam dund na nga ñam dee mm-hmm. ma ne ko baat boobu ni mu wéree ci alxuraan mm-hmm. noonu la alxuraan yëpp wéree mm. fi mu toll baat boobu yahut beeg siif beeg ñëpp ko gëm bakkan bu mm-hmm. ñam dund da nga ñam dee mm. ñëpp ko gëm waaw léegi yeneen niñ gëmul nag nañ mm-hmm. xool ci baat bee rek ni baat bee wéree noonu la waxi suñu borom yëpp wéree waaw nañ delluwaat ci yàlla rek dëgg dëgg dëgg dëgg waaw muy lu am solo euh, sëriñ Mame Cheikh Touré moom lañu ñu àndal euh, tey ci seen émission euh, ma wax leen rek mi ngi dëkk fii ci Yoff ci ginnaaw hôtel Via boo fa taxawee rek euh, yoof ci tali cimetière yi foo ne hôtel via via incha allahu taala dinañ la fa yóbbu wala boog nga woo ko ci numéro yi mi déjà mi ci suufu écran bi 77 609 01 95 ñaan doon loo xamante ni euh, nit ñaa ngi koy def ba léegi mais euh, sëriñ maam Cheikh tey moom defe naa ne début waxtaan bi yëpp dañ koy jël jagleel ko ci yow balaa may ñëw ci li saxaar beeg yooyu parce que am na ci loo xamante ni nit ñi dootuñu ko laajte ci yow mais euh, dama gis ne sëriñ maam Cheikh macha allah fa tabarakallah mi ngi sant yàlla bu baax a baax a baax a baax ci nekkinam ak yooyu te sëriñ maam Cheikh këram amul buuxante ñi ngay traité ci biti la ñu nekk wala ay kilifa la ñu wala dafa am fu ñu lay làq wala déet. waaw <laughs> euh, lu Baye. Hmm. gis nga euh, nit ñi ci jëm boppam. Hmm. am na ci ñoo xam ne si seen lépp sutura la. Hmm. Euh, te bëgguñu ay xat-xatloo gis nga tout le temps heure bi ngay waxtaane nit ñi nga bëgg ñëpp di dajee sa kër mm. te ji bu ma la joxoon mm. rendez-vous dix heures jox kii rendez-vous dix heures jox kii rendez ñëpp ngeen dajee sama kër loolu amul sens toog di xaar di wutut waaw toog di xaar loolu amul sens mm-hmm. man bu ma wóoree ne yéen ñaar da ngeen fee nar dajee daje te yëgawu leen mm. xam nga am na ñoo xam ne dañ dem ba ci yoon bi sax woote ne la ñoo ngi bërëb sàngam yàlla xam na ne naqaree jot gi ma naqaree jot téléphone bu ma toogee ak yow nii. Mhm. bay wax ak yow du ma wuyu du dëgg la waaw ndax ki nit ki ñëw ba dagg yiteem ñëw toog rek. Mhm. waxal ak ba yegg. Mhm. te ki lay woo téléphone xamul ne ba xam ki nga ki nga toogal mën nañoo xamante ñoom ñaar sax. te du bëgg kii xam li ngay doxlu. léeg-léeg sax euh, ku mel ni man dalay woo ngay wane ne xam naa soxna Mbaye ak maa koy nga bëgg ki toog dégg ko. te yow loolu ci sutura ngay dox doxoo ci loolu. déedéet wax dëgg yàlla man de bu ma sañoon képp ku ma jëflanteel sama diggante moom la yem te boo ñëw sama kër sax doo fekk kenn loolu ñu dëkk ci kër ga. d' accord maam Cheikh Touré la ñu àndal waaye tey ma posé la question bu doy waar maam ki lay yóbbu guddi ci hôtel yu mag yi Ndakaaru yi foofu noonu kan la. ah mais loolu sutura la baal yi ngay laaj. maam guddi à partir de minuit ñu jëlal ko benn loge mu mu mu nekk fa di def yu doy waar ay kilifa di ay kilifa kooku kooku moom duñ ko xam. léer de ñëpp bu ñëpp xamee fi nga jëm doo yegg baal yooyu rek am na am na am na am na am na sa benn mbokk mu masa woo maa ngi koy nuyoo passage di nuyu waa mhm. mu ne Mbaye ak ma ko bu may bu may toxu yoof Mbaye mooy tax ma toxu <laughs> loolu laa ko wax de ndax daf may espérance waaw <laughs> nee naa ko bis bi ma jógee fii daal di toxu yoof mhm. ne leen wóor ne Mbaye nga tax may may toxu rek espion laa de ndax gars yi dañuy laaj maanaam xam nga euh, émission bari dama fee waxoon naa maye wàllu ngóora waaye émission bi nag moom boo ma bàyyee dëgg-dëgg bëgg naa fee maye. Mm. ci wàllu ngóor googu. waaw maye fi luy teel nit dugg kaso waaw maye fi yeneen ak yeneen yoo xam ne si dana ñëw sama xel dina dinaa ko mayee nit ñi jëfandikoo ko fañ nekk. moom la ñuy jeexalee ca émission ba incha allahu taala bu ñu demee ba ci jeexital ba loo xamante ni pour ngóor la ak loo xamante ni euh, bul dugg euh, doo dugg kaso. Euh, ma xam ci lu wér nag gaa yi di laajte pomme bi ba léegi pomme bi moom tey duma ko tudd ku mu yitteel ku ne rek woo ko ci numéro yi comme ni ma leen ko waxee rek 77 609 01 95 sëriñ maam Cheikh ngay listixaar nit ki bu yegsee ci yow wala bu la wooyee téléphone nga defal ko listixaar bu wér bu leer nañ euh, sëñ lan moo lay wax yow. waaw soxna Baye loolu du dara gis nga nit ñi. Mhm. di ñuy tàbb ak yàkkamti. Mhm. fan yële dafa am benn waay bu ma bu ma waroon a seetal. Mhm. xam naa yi fi yàgg ci moom. mu jékki-jékki ne ma ne ma nañ tas maxi bi. <laughs> ñu tas match bi. ba yàgg mi yàgg. Mm-hmm. xam nga tey jii day am ñoo xam ne si dañ la yónnee xaalis lu yàgg yàgg mën a toog xaar. Mm-hmm. waaye am ñoo xam ne defe nañu bu seen xaalis duggee ci téléphone bi rek dañ laa war a kii te li si xaar. Mm-hmm. gu jaar yoon. benn nit nga ko mën a defal par journée. dëgg la benn nit nga mën a lis xaaral ak guddi ci mu jaar yoon. waaw waaw xam nga loolu ànd toog yi ànd toog yàkkamti. d'accord nit ki nga xam ñëw na toog nag bëgg ku ko xoolal ay mbir yu sew sewaana mënees na koo xoolal. te li ma lay wax chaque fois man sama soxna moo ma dàq seet. gis naa ko waaw waaw moom moo ma dàq seet ni yoon. Mhm. waaw mhm. ñu bëgg seetlu da nga am da ngay seetlu nii nii direct. Mhm. yàlla xam ne bu ñu ko woowee moo ma dàq seet direct. da nga koy koy woo envoyé ko li muy seete mu seetal la wax la lu wér te nag li ma ci yem mooy. bu la nee nangam lii boo saraxee nangam ak nangam di nga ci am lu la leer boo ko saraxee boo moytuwul bala ngaa tëdd ci lal wala ci ëllëg sa di nga ci am lu leer nañ ñi kooku moom maa koy gaa yi loolu moom xam naa ko soxna si. ah yàlla xam na ko moom xam nga nit ki moom. Mm-hmm. man doo baal mayal ma gars yi numéro soxna si. waaw waaw jëlal 78 150. 47 89. 78 soxna Xadi 78 150. 47 89. muy ku lu am solo koo xamante ni suba ba ngoon jot noonu la koy yendoo gis nga ni mémoriser numéro bi. Euh, wàllu seet bi dama koy. teg numéro numéro ñëpp Mbengue. Mm-hmm. da ngaa def fii émission ba mu ba mu yàgg. Mm-hmm. ñu wooma waaw ne ma del tudd nangam ak nangam. Mm. te man yooyu du ma ci bàyyi xel sax bàyyi noonu rek. <laughs> non maa bàyyi noonu xam nga ñoom ñaar bokkuñu ci domaine yi ñu liggéey. <laughs> dëgg la soxna yi bokkuñu bu fekkee soxna si nekk Tiwaawan. Mm-hmm. moom yàlla dogal na ci mbirum banque lay liggéey. xam nga mm-hmm. ko teg lii nii li muy liggéey xam nga nit ñi. ñi ci àll bi dañuy dañuy jaxase nit ñi rek. dëgg la te nañ ma bàyyi ak eh, sama ñaari soxna yii wax dëgg yàlla te <laughs> dangaa nekk nit ku maandu nag dangaa nekk nit ku maandu. waaw kii moom li muy def. yàlla xam na ne bu fekkoon mënu ko mm-hmm. du ma ko duma ko jàllale. d'accord ndax bëgguma ànd ak nit ci ay tappale ak ay. jaaxaan doo ànd ak nit ci ay tappale te it nag euh, li waral loolu mooy dañu def émission nga wax ne sa soxna bu dee seet rek moom fayee ko bor. mu hmm. am ñoo xamante ni boole naa ko ak ñoom mu jëflanteeg ñoom loolu moo waral turam ci biir émission bi. alors ñu tourné page boobu maam dafa am mbir ñaari mbir yoo xamante ni euh, euh, donc ñaari mbir ba ñett tey ci lay tënkee waxtaan wi muy xaatimu kayit gu mag googu. ñu tàllal ko hmm. xaatim boobu mu ngi lakk dëkk bi doyewul sax hmm. te mi ngi lay jaral ngay génn euh, di di dem di ko wuti ji euh, di ko indiwaat hmm. parce nit ñi ñoo ko bëggal seen bopp ndax ku ko laal ci saasi di nga ci gis soppite moom ban secret ci nekk waa Soxna Mbaye euh, xëy na leeral ko dëgg-dëgg du xaj ci émission bi li may wax nii xam nga day am loo xam ne si gone tey mën nañ koo bañ a bañ bañ xam dëgg-dëgg ci mbirum ñaan ndax dañ ko dul gis lu bari. Mm-hmm. loolu lañ naan xoloo bul xalaa exi mm-hmm. day ñor di xolu mbindeef yëpp mu jubal si la. Mm-hmm. te xaatim bi dañ koy gisee noonu. du ànd moom dong. dana ànd ak lu mat juróom-ñaari sungus yu bokkul. dana ànd ak ay parfum ba ci gereesu nag sax day ànd ak moom. cangaay lay loolu loo xam ne si 14 jours. Mm-hmm. ni mu lay yëkkatee noonu la lay garantee bandek mm-hmm. dogalub yàlla mm-hmm. te dara génnut alxuraanul karim da lay yëkkati te da garante garanté waaw waaw lu bëri njëriñ la te bëri bëri solo waaw kayit gi def ñetti mètre ak ku des mm, maa la ko wax dafa dafa am njariñ ci ci ci dundug doomu aadama ci ci ci dundug doomu aadama waaw gis kay lañ ciy wax di ko di ko di ko jël ci yow ñi bëgg a falu wala ñi bëgg a fa ñu nekk maanaam bañ a dellu ginnaaw benn yoon gis naa ñu koy jël si ci yow bu fekkee yàlla mooy dogal rek mm. bépp mbindeef mm. bu ko am sa morom dootu la raw ci mbir yëpp mm-hmm. nag mm-hmm. waaw mm-hmm. am na solo 77 609 01 95 moom mooy numéro am euh, ki nga xamante ni euh, mooy euh, Serigne Mame Cheikh Touré nekk fii ci boori hôtel Via Via ci diwaanu Yoff boo duggee ñaari banque yi rek foo laajte hôtel Via Via danañ la ko wan nga taxaw fa woote ci numéro yi incha allah dana la jël si wala waxaab jël si la. wala mu yebal keneen ku la jël si ba tey bu ma jógee ci xaatim boobu am na beneen secret boo xamante ni itam euh, sëriñ mam Cheikh mu ngi koy def mu yéeme lool muy ndomba gi ndomba gi ndomba la. ndomba gi. Mm-hmm. boo ko amee suñ borom dana la defal kaaraange goo xam ne si. Mm-hmm. doo dugg kaso mukk mukk mm-hmm. te loolu dama ci may nit ñi benn secret. waaw moom ndomba gi ci béy wuñu lañ koy liggéeyee. boo ko ci liggéeyee dugal ci turu nit ki. bu àndee yàlla suñ boroom dana ko musal ci koso noonu timit la amee ñi nga xam si dañoo sori mm. ndax ñëpp mënuñoo ñëw ba ci man dañuy woote rek mm-hmm. bu ñu wutee resu gileem resu gileem waaw resu gileem mm-hmm. nga weer ko ba mu wow ci naaj nga koy weer ba mu wow mm-hmm. nga dëbb ko def ko ci lu ñuy lekk jox ko nit ki dugg koso ku nekk kaso waaw balaa rees dana génn bu àndee dogalub yàlla resu gëleem lay jël. resu gëleem lay jël. ko saaf day ci jël benn morso rek. waa weer ko ba mu wow. weer ko ba mu wow mu dëbb ko ba mu nekk sungus. mu dëbb ko ba mu nekk sungus. ñu toggal ki nekk kaso. waa def ko ci ko ci mu lekk ko. waaw balaa rees. dana génn ci biti. yaa ko may gaay maa ko may gaay xam ngeen ni mbaax fii la mën a yem de. ñaareel ba ma ma waxaat bala ma koo fàtte. muy ban. gis nga boo jëndee aw béy. waaw nga nga ray ko. boo ko reyee nga jël euh, kër ga. waaw kër béy bi. waaw nga bind istaa suuf sulati waaw boole ko moom jëfandikoo ko waaw bu ànd dogalu bu yàlla doo doo tële doo tële waaw doo tële mukk répété ko boo jëndee aw bëy aw bëy nga jënd ko waaw nga jër kë kërug bëy ga mm-hmm. nga bind isaa sulati mm-hmm. def ko saafara toggee ko ko mm-hmm. def ci xorom rek daal di koy jëfandikoo naan ñeex mi suñ borom dañ la musal ci ak tële ki tële dal ba pare nag mu gaaw a yegg yëg boppam waaw kooku moom dañ koy traité gi nga euh, ki ma jox sama garab man mm. ndax nit ñi li leen di dal du bokk nag soxna Mbaye waaw euh, dama fay def mm-hmm. ku ma wax ma garab la soxla mm-hmm. yàlla dogal garab gi lépp ci alxuraan lay doon ñam bi rek lay àndal mm-hmm. ma jox ko ko alxuraan moom amut ma dem te ñëw bi mu ko naanee ci guddi gi toute la journée moom dafa yëg boppam ci lim ma wax bi mu suba yëf yi daal amaat jafe-jafe Mm-hmm. ma ne ko léegi da nga ñëw ñu xool loolu waaye loolu xam nga du ci garab gi kon xam nga nit ki mën naa may lu ko topp di ko yàqal ak yooyu waaw waaye képp koo xam ne si jox nga ma sab dërëm mm-hmm. bu ma ko xasee ba jël mm-hmm. lépp lu ma la jox di la ko traiteel mm-hmm. boo ci gisaatu lu la gënal a nga may woo direct rek mm-hmm. ma xool wan yoon laa jaar ba traiteel la ba nga normal dëgg la léeg nit ñëw sax te du yor dara ñu traiteel ko ba mu normal nga traiteel ko ba mu normal waaw waaw léeg-léeg nit ñëw bëgg indi sikki sàkk nga delloo ko xaalisam waaw moo tax kalaame bariwul ci yow mm-hmm. musuma cee teg sama bëtit te gars yi moom euh, lu waay def léeg-léeg sax nit invité keneen feneen nit woo ma ne ma diw de def na ma nangam ak nangam ak nangam te sëriñ la waaye nag du yow yaa ko invité woon waaye da ngay nekk ak ñoom waaye nag maam Cheikh mii ma àndal macha allah fa tabaarakallaa nekkul koo xamante ni mës naa dégg kalaame ci moom benn yoon te it nag ñu ngi bëgg a yàgg kon mbokk yi rawatina ñi nekk bitim réew te am jafe-jafe surtout wàllu këyit euh, maam Cheikh euh, man yónnee nañ ma sax euh, carte séjour. na ma jafe woon na ma lool waaye ginnaaw yàlla. sëriñ maam Cheikh moom ma ci jàppale ba ma jot carte séjour bi. foto ko yónnee ma ko par WhatsApp. ban secret la. waa góor góorgóorlu rek ndax moom Soxna Mbaye mm. loolu liggéey bi mm. dañ ci daan liggéey bu ñu masaan a liggéey mm. am na ay seede yu bari yoo xam mën naa koo joxe ci ci diaspora bi dañaa naan xaalis bi dama teg ko bërëb sàngam wala nga ne ma xaalis baa ngi nii ñun ñooy jënd sarax yi ñuy saraxe jënd cuuraay boo noppee boo ci xasee ba dugal dara da ngay dóor di dàqe rek waaw waaye kuñ bu ñu yàlla boole daal bañ waxtaan ba mu déggoo bu dee ci mbirum kayit bu ànd yàlla moom buñ ca dee jëflante duñ bàyyi te jotoo ci te boo ñuy woo tamit heure boo ñu wooye da ñu jot ñu naqari wu ñoo jot xay na leen léeg liñ bi xaw a saturé mm-hmm. ba duñ kii d'accord waaye heure boo ñu wooyee wala nga bàyyil ñu message lu mu yàgg-yàgg dañ ko liir dañ la tontu li wóor jëlal sa xaalis teg bërëb sàngam ba mu leer ne ma nga bërëb sàngam ma jëf jëflanteeg yow Euh, su sa aajo fajo ma dem jëli sama xaalis nga dem yeggale dox sa dox yaakaar naa ni loolu ci sëriñ maam Cheikh Touré rek lañ koy déggee muy góor muy jigéen nag nga nekk biir réew nga nekk bitim réew fu ci waay mën a nekkit noonu lay jëflanteeg yow ndax macha allah yàlla wàcc ko benn yoon te nag jubal gi ak sellal gi ak euh, am ndam ci liggéey bi looloo waral ba lu mu lam namm lu ne rek fëgg kilifa yi ñu defal ko ko macha allah day bañ ma wax ko nag waaye dinaa ko wax sëñ maam Cheikh am nga cuuraay am jaaro mais damay jëkkee ci jaaro bi Euh, euh, jaaro bi euh, lan mooy lan mooy yitteem. waaw jaaro yi. lii la wala. waaw man yi man li may defal nit ñi rek moom laay takk di wax hmm. dëgg yàlla. Ah, <laughs> jaaro yi xam nga nit ñi. Hmm. dañuy dañuy faral di yor te ji boo yoroon benn un million. Hmm. boo ci génne woon benn cinquante mille jënd ci benn peeru dàll wala nga jënd ci benn téléphone li ci des lépp day naaw doo xam. fu jaar ñàkk nga ko dëgg la. waaw man naa bañ a doon rab xanaa mm. xamoon ne parfum mm. li ko def ci digg loxo nii mm. day waral maanaam loo am day naaw parfum parfum te nit ñi nañ bàyyi xel ci loolu parfum boo ko di def ci digg loxo nii day waral xaalis day naawal xaalis d'accord jaaru yi suñ boroom dana dogal ne day ànd ak euh, bayre mm-hmm. day ànd ak euh, loo am dana toog sa loxo mm-hmm. waxtu wi ñuy waxee ak nit ñi tamit amuñu ko ndax bu buñ ci dee liggéey dañ ci liggéey par lim boo xam ne si ci weeru rajab ba hmm. weeru rajab lañ koy liggéey. Ah, par rajab waaw man yi ma yor man. Hmm. par rajab ba rajab laa koy liggéey. ndax na ku ma ci woo barki dem rek li ma ko wax ma ne ko te weeru rajab nangam sangam lañ koy liggéey. Mhm. mais léegi nag jaaro yi moom tout le temps mais sa yos moom weeru rajab lañ koy def. waaw man moom da ngay commande nangoo xaar. waaw na Mbaye man bëgguma ànd ak ku yàkkamti. déedéet. waaw bëgguma ànd ak ku ku yàkkamti. d'accord. te bëgguma tamit ëllëg ñaar la xoolal ñu foto mm. jaaru bi wan la ko naan dama ko yónnee te amul dara nangam ak nangam mm-hmm. loolu nag nit bu yàkkamtee ba teg péréxigne ki nga mm-hmm. ki nga xas a yónnee sab xaalis day bëgg a tàggale kook yow rek te loolu baaxul yow li ngay liggéey mm-hmm. yaa ko liggéey suñ borom may la jàmm boo xasee ba yónnee nit ki sa xaalis may kook dal rek te xam naa laa ku yàlla ni la ma ngeen seq muy wàllum liggéey da nga ci jot te ñaaree ba wi li nga nit ku ci ne. Mm. am nga mbokk moo xam ne mën na laa doxal li nga bëgg a dox fii. Mm. waaye bëggoo mën a mënoo di liggéey. walbatiku di la yóbbal ay garab ci CPEC. wala ñu la koy postoog loolu dafa xaw a metti mm-hmm. te léeg-léeg dañu lay teg pressing te mën ngeen ko bañ a waxante waaye bu ñu xasee ba jox la sa xaalis ba nga am wóor na leen yow récupéré nga xaalis bi dañuy bëgg na boo dañuy bëgg mbokk xamal leen dara déet waaye nit ki mun a ñàkk mënut a mënut a mënut a mënut ñàkk koo xam ne si mooy kii li ngay dégg li ngay dégg ñaan ay sëriñ diw dama dóor dóoru ko mm. yu ci bëree bëri boog farul ma benn sëriñ mm. waaye yu ci bëree bëri yu mel nii lay doon dëgg la nit ki tey jii soxna Mbaye bu ma dee yóbbante ci soxna Mbaye mm. war na maa mën a am rakk joo xam dama naan am joxal ma soxna Mbaye deux cent mille yi boo demee lam la war a jox mu jox la ko ngeen tàggali ko ab yóbbal mu jeex tàkk mu jeex tàkk waa yow bëgg yow mu nekk fa fële ñaari réew yi soree lépp maanaam nga bëgg koo dox te kenn du la ko yëgal mm-hmm. loolu yow yaa war a xoolaat sa bopp ne mu tag ci yoon bi da da da mm, am na solo am na solo bu baax a baax leeral yi wax naa leen ko 77 la 609 01 95 Serigne Mame Cheikh Touré moom la ñu àndal ci biir seen émission di waxtaane ci biir ñaaw xalima euh, Sunugal 24 euh, seen site bi nga xamante ni moom moo lëmbe jamono waxtaane nañu fi wàllu jaaro bi waxtaane fi wàllu ndomb ak xaatam boobu mu nekk nag loo xamante ni yu doy waar la xëy na temps bi moo ñu dul may pour ñu mën a détailler lépp waaye leer na nappam ba jaar yooyu itam yu ko gën a garaaw la te it nag macha allah fa tabarakallahu euh, euh, askan waa ngi ciy gis seen bopp bu baax a baax kon gaawatu leen surtout nag ñiy commandé jaaro bi comme rajab lañ koy defar da commandé teg sa tura nga fa sa lépp nga fa dawul daayul ku mu jaaxal ku ne woon soxna Mbaye ndax soxna Mbaye umpul kenn ba tey sëriñ maam Cheikh du ma euh, bàyyi cuuraay ngala ngal bu risque la woon. <laughs> jal bu risque jal bu risque. waaw waaw kay jal bu risque lëmbe jamono lool. ci wàllu ubbee ci hmm. wàllu kaaraange ci wàllu defar yëpp mais sëriñ maam Cheikh yow nopp nit ñi dañ koy bind ñii di jàmb ñii di takk ñii di kii mais yow sa nopp sax am na cuuraay waaw waaw euh, soxna Mbaye di nga jaxle fu ma la xamee de moom kii maan la kay moom ah, la ma waxoon waaji rek faaw ma wax ko ne naa ma sa génn yoof fii ku fi toog ku ne dinaa la laaj ba nga naaw te li may laaj yëpp dama ko xam ba jeexal ko waaw mbiru cuuraay ak parfum mhm. xam nga man jëyuma parfum. déedéet. waaye toog naa ci télé bi ne leen. Mm. parfum biñ naan pàncoli. Mm. ki nga xam yàlla dafa dogal maanaam muy wut mm. wut xaalis xaw koo jafe. waaw wërsëg koo jafe bu koy raayoo du manqué dépasse. moom pàncoli. waa mais entre parenthèse maam Cheikh sa lépp démb la ni mag ñi daan ñaane biddéewu nit ki boo koy bala nga koy ñaanal da ngay xool biddéewam ba xam waxtu wi nga ko war a ñaanalee jaaro yi boo koy liggéey période rajab nga koy def. nit ñi ku leen xam xamoon wàllu ñaan démb xam ni cuuraay ak parfum boo mosaan dugg néegu sëriñ dangay gis muy saxaar te loolu moo nekk ci maam Cheikh dafa gëm cuuraay gëm parfum di ko jëndee ay millions lu waral loolu. waa xam nga xam nga non non du du du woo du mm. gis nga euh, tey jii. Mm. doon ne yàlla laay wër rek dem dem ci boîte ba. dëgg waaw ndab li bala nga cey def lekk da nga koy raxas ba mu set. ba mu set wecc fomp ba mu wow. Ah, ah, ah, cuuraay cuuraay fi mu toll nii am na am na cuuraay yoo xam ne si boo ko tuddee prix bi nit ñi di ñu tiit. Mm-hmm. ma toog fii ne leen xuut al mulk. xam man jaay jaayuma ko. Mm-hmm. gramme douze mille cinq cent la jar. benn gramme benn gramme douze mille cinq cent. moo bi douze millions cinq cent la jar benn kilo. Mm-hmm. sa boobu bokk na ci gën a oyof xëy na. benn kilo douze million cinq cent loolu yombul. dafa dafa bokk ci ay ay tegtal. Mm-hmm. ngay ñaanal nit ki. Mm-hmm. bëgg ñaan gi gaaw. Mm-hmm. nga taal ay cuuraay. waaw danay xëcc malaaka yërmande yi. xanaa xamoo ne maanaam nit ñi mer nii dëgg-dëgg du ñoo ay parfum yu foor sax parfum yu fort dëgg-dëgg boo koy laal doo mer. Hmm? doo bëri looy mer. looloo tax nga fonk ko. dafa dafa bëri ay dafa bëri ay njëriñ ngay defar nit ki avant bi ma la wax léegi. lépp lépp am na benn cuuraay bi ñu naan aldit. alditoire ak faaso mm. ñaar yooyu boo ko composé mm. nga tekki gàllaa ji nga takk nga dugg ci du suuroo ko mm. lépp lu nekk ci yow day dañ te yaa ngi koy joxe non fi may waxee yow aw ko waaye même ah, yow bu la nit la nit liggéeyoon wala naa boo tëddee da koy gis hmm? waaw boobu di koy faral di ko joxe dama koy faral waaye fii may waxee waaye fu dem ci jaaykatu cuuraay yépp nii day am aldit faasoo aldit ak faasoof ak faasoof waaw boo ko boolee nga composé ko. d'accord doo takk gàllaaj nag ndax day day toj. day toj lépp waaw day day teg loolu moom defal naa ko nit ba tàyyi. mu mm. teg ci bëtam. njal bu risque la xaw ma nag. waaw jal bu risque moom ñun ñooy composé yi ñuy composé di ko jox nit ñi baax na ci mbirum noob ci kër. Mm-hmm. baax na ci mbirum wërsëg. Mm-hmm. waaw waaw ñun ñoo koy defar. d'accord waaye na leen wóor ne. Mm-hmm. fañ ko daan jëlee yenn yi fañ ko daan jëlee. Mm. ba fii may waxee yow dégguma avion buy dem di fa ñëw muy màkk kon nit ñi moom mën a ñëw teelu <laughs> mën nañoo teelu te xam ne Soxna Mbaye da leen a bëgg a yëngal jeex na bu yàgg yàgg yàgg yàgg fexe leen am jal bu risque maa ko na jeex na bu yàgg yàgg yàgg nga dama la fee njubla nga may ma benn ñëwaat émission ma jëlaat beneen waaw kay beneen ba ma jëloon ma jël ko jox ko nit mu dem bitim réew mu jot ci yàlla xam ne xoolal dafa am benn femme bu jógee France bi mu ñëwee sama kër moom la ma njëkk laaj ma wan ko xottu bitéel man yi mi nga xam ne si moom laa ciy jëfandikoo <laughs> ma wan ko lu yoo xam ne man sama jëmi bopp man maa koy jëfandikoo kama ko may daal sama copine boobu daal fi mu nekk nii ma nga jonkoon taxaw ne ma fu mu mënti nekk wari ji ko ba pare nga xamal ma ne ma jeex na euh, temps bi jeex tàkk euh, sëriñ mam Cheikh ñu lay gërëm di la sant tey yaakaar naa ni waxtaan bi dañ ko jàpp à l'aise waaye incha allah numéro bi di ñëw itam danañ gën a waxtaan ak nit ñi ci yeneen yoo xamante ni sëriñ Mame Cheikh euh, mi ngi koy def lan ngay tàggoo ak mbokk yi en tout cas xaatim bi nit ñi soxla nañ ko jaar bi nit ñi soxla nañ ko ndomba gi nit ñi soxla nañ ko waaye pom bi itam comme jalbu risque amatul pom bi itam gars yi soxla nañ ko parce que nag euh, xëccoo moom danga ko def sa moomeelu bopp te bëggoo lu yomb te loolu xam naa ci dara ñu jaare fa tàggoo <laughs> waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa ñoo ngi nuyu ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan képp ku ñuy seetaan daal mm. yàlla na sa ajo faju ci barke Moustapha sallallahu alayhi képp koo xam si naruñoo faj sa aajo yàlla boo yegsi ci ñun mm-hmm. soxna Mbaye liggéey bi dañ koy def pour jaamu jaamu ci yàlla rek mm-hmm. mm, pour pour jaamu ci yàlla mm-hmm. yàlla xam ne am na ñoo xam ne taxawu nañ leen ci ba liñ bëgg seenu njaboot ñam ko loolu loolu si ma woo barki woon naa ko loolu loolu rek moo ci moo ci am solo yi mu gis waaw waaw loolu rek moo ci moo ci am solo. am na solo waaw. am na solo ndax nit ñi yaakaar rek dañu am. Mhm. te ab jullit tamit yaakaar rek lay demee. Mhm. kon képp koo xam ne si daal seetaan nga ñu bala nga ñaaw woo. Mhm. yàlla na sa aajo faju amiin ci barke Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. waaye am sutura itam am njariñ euh, noonu laa ko tuddee macha allah fa tabarakallahu ndax euh, dafa ragal nit ku sonn loolu moom dama leen koy leeralal nit ku sonn am jafe-jafe daf ko ragal. dana yëkkati ci poosam sax jot jox la pour sa aajo faju yaakaar naa ne nag kooku du la dëbb li njaa du la dóor du la wax itam loo xamante ni nekkul wala muy yóbbu saw fit kon ñu ngi koy gërëm bu baax a baax di ko sant ñu mel nii laa bëgg àndal ci kër gi ndax nit ñi dañuy nekk ci ay jafe-jafe mu metti lool lool lool waaye ñuy def seen kemtalaay kàttan pour war a mën a nekk ki nga xamante ni mi ngi ciy jafe ba noppi nag mu ñëw nga yokk ko tiital ba pare ngàddloo sam mu nërmeelu kooku bu dee bu ko kenn autopsie yaa ko rey maam Cheikh nag du rey kenn boo ko bëggee am woo ko 77 609 01 95 wala nga waaxu ba yoof foofa taxaw laajte hôtel via via ca yoonu armeel ya danañ la ko won su ko defee rek euh, foo laajtee sëriñ maam Cheikh Touré incha allahu taala maa ngi moom a dëkk même moom boo ko gisul man sama fit may na ma laajteel soxna Mbaye ndax du réer su ko defee bu ñu la indee nga laajte kër sëriñ maam Cheikh dinañ dafa yóbbu ci kàttanu borom bi mbokk yi ñu ngi leen di gërëm di leen sant di gërëm équipe technique bi nga xamante ni ñoom laa àndaloon muy euh, Dóor waar ak Dramé Kangi Soose sama Saalum Saalum bi sunu stagiaire bi ñu ngi koy ñaanal yàlla na ko yàlla jox diplôme bi mu bëgg nuyu ñëpp ziar ñëpp mbokk internet Sunugal 24 yëpp rendez-vous incha allah très prochainement incha allah ci biir kër Mbayang ñu teg sunu ànd rek ràcc mu dellu comme dafa sedd te nii lañ koy doxee kon salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu fi amanillah ja ngeen jëf